ñun ay membres leen yu bokk ci syndicat des cadres et des employés des ports du Sénégal syndicat bi instance yi dañoo jeex depuis 2019 et que le secrétaire général sortant buggul organiser congrès te texte yi daf ci am article bu am daf ne article 9 daf ne 3 ans yu ne syndicat bi dafa war a dem congrès syndicat bi nag buy dem congrès lieu ba mu koy defee ak date ba mu koy def conseil syndical bi ñoo ci war a waxtaan te aussi buy dajale délégué yi lay dajale délégué yi nga xam ne dañ leen di jëlee ci secteur yi wala zones yi te cinq membres yu ne benn délégué moom moo leen di représenté moom moo mu xëy mu ne du ko defee noonu daf koy def à sa façon mu convoqué benn assemblée de vingt et un personnes ñu defal benn nouveau bureau bureau boobu bureau fictif la ñu koy contesté pareegun central syndicat bi xëy jénn benn décision central de Sidya Ndiaye comme quoi que ne moom assemblée boobu noonu validé ko validé na ko ñu ne ko loolu du fi am loolu du fi am parce que ñun ñun ñoo leen embauché ñun embauché ñun ñoo jël suñ cekof di leen ko jox du ñoom ñoom ñoo ñuy forcé ku ñuy jiital te syndicat bi dafay dem congrès le 19 mai te ñoo ngi jëm ci datu premier mais bi nga xam ne dafay am altina te duñ wàcc benn organisation kenn kenn di fa wax au no du syndicat dañ koy bañ duñ ko nangu ñoo ngi defar suñuy délégué actuellement nous sommes déjà à 90 délégués te délégué bu ne il représente cinq personnes multiplié par ça rek ça donne 450 membres donc déjà nous sommes avec la majorité maanaam li ëpp ci wàll wàllu numtudi bi ñoom na àndal vu que nag membres yi li topp ci numtudi 600 lan boo jëlee 600 nga mooy ci 450 presque 150 moo ciy des li ci des nag mooy li nekk suñ kanam syndicat bi comme ni ñu leen ko waxee dafay dem congrès le 19 mai te buñ demee incha allah balaa ñu caa yegg dinañ yëgal central bi dinañ yëgal DCH mooy le représentant de la direction général ñoom ñëpp ñu ñëw teewe ko pour ñu defar benn bureau boo xam ne nii moom mooy représenter le syndicat pour une bonne fois pour toutes du ñu masa nangu du ñu masa nangu bureau bii fi nekk nii duñ masa nangu mu ñuy représenter ñu di ko doon ñu buggoon ko leeral ñépp xam ko ñu xam ne loolu kat moom moo fi nekk. waaw message bi may leeral mooy na ñëpp jël seen matuwaay. na ñëpp ñëpp jël seen matuwaay. syndicat bi dafay dem congrès le 19 kenn kenn kenn kenn kenn kenn du ñu choisiral suñ nekk du verser suñu cokof ba pare. ñu diñu ko jëlal kenn ñang waaw ce qui compte le grosso modo est dit le con le congrès aura lieu le 19 mai applaudissez congrès congrès